wajalilaayi maskani sociale bu Touba ca kanam di wéyal saa su ne liggéey bu am solo bi nga xam ni moom lay def ci dëkk bu sell bi di Touba ci jàppale askan wi taxaw leen ci mboolem seeni jafe-jafe moo xam defaral leen seen dëkkuwaayu la taxawu daara yi nga xam ne ci la ñuy jàngalee alxuraanul karim taxawu ñi nga xam ne dañoo amee wéradi jàppale leen ci wàllum ordonnance taxawu it askan wi ci mboolem événement yi moo xam koor la korite tabaski ba ci grand magal bu Touba. koppar yi commission sociale bu Touba ci kanam di def ci liggéey bi ay jaayante la yoo xam ne mu ngi bàyyeekoo ci mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi. commission sociale bu Touba ci kanam amal nañu liggéey bu am solo ci tabaski atum 1445 ginnaaw gàddaay gi di atum 2024. ci taxawu jullit yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba di dëkkub sunna ni ko Cheikh Ahmadou Bamba waxee. commission sociale bu Touba ci kanam jàppale askan wi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw. moo tax mu def ci liggéey bu am solo boo xam ni dafa gën a kanam ci social tabaski yi jot naa dajale lu toll ci 42 millions de francs fa muy ñeent fukki millions ak ñaar ci suñuy koppar ci wàllum collecte boobu ba léegi su commission collecte bu commission sociale bu Touba ci kanam ànd nañoo waa assis di association des commerçants et industriels du Sénégal bi nga xam ne moo nekkee ci Touba Mbacké ñu dugg ci marché ocas bu Touba ñu jël leen faa jox lim bu takku ci ay tissus ak yére yoo xamante nii wàññil na commission sociale bu Touba ca kanam ci li nga xam ne moom la daan jënd ci ay tissus ndax ren jii ci tabaski atum 2024 bi 1 million 425 mille francs la ñu jënd ci ay tissus ginnaaw bi ñu matalee lépp lu jëm ci wàllum collecte bi def nañ li nga xam ne moo jëm ci wàllum distribution bi loolee nag ñu ngi ko dooree ci bis bi nga xam ne ci lañ jàppoon social tabaski bi mu ngi nekkoon àllarba dëppoo woon ak fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2024 ci teewaayug sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Fadal mi nga xam ne mooy moo jëwriñu Touba ca kanam ak président bi di sëriñ Mamor ak njiital commission sociale bu Touba ca kanam di sëriñ Muxtada Mbàkke moom sëriñ Abdul Fatah ak ay kilifa yu takk lool. bi ñu amalee cérémonie bi ba ci ngoon gi ci la ñuy door li nga xam ne moo jëm ci wàllum distribution bi muy séddale gi ñu déployé ay oto sëf si yére yi yóbbu leen ci mboolem sancaan yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba. ngir jébbal li nga xam ne moom moo di yére yi ñu leen di jàppalee ci tabaski gi. sachet yi nag benn bu ci nekk def na lu toll ci fukki yére. bagage yi nag amoon na ay takkaay ay sac à ay dàll ay rideau ay parfum ay darab ay kaala ak yeneeni jumtukaay. li nga xam ne séddale nañ ko ci ay yére mi ngi toll ci 71 591 ci yére yoo xam ne yu ñu ñaaw la muy juróom-ñaar fukki junni ak benn yére ak juróomi ak juróom-ñeent fukk ak benn ak junni yére fukk ñaar ci yére yoo xam ne jotuñu ko ñaw boo jëlee mboolem yére yi nga xam ne moom la commission sociale bu Touba Ca Kanam askan wi ci social tabaski atum 2024 bi mu ngi toll ci 72 759 mu juróom-ñaar fukki junni ak ñaar ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay yére ñu jébbal ko 7159 foyers mu juróom-ñaari junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay borom kër séddale gi nag yemul ci ay yére dafa am ay koppar yoo xam ne it moom lañ jébbal askan wi loolee mi ngi toll ci 28 millions de francs CFA muy ñaar fukki millions ak juróom-ñett yoo xam ni séddale nañ ko ci ay enveloppe jébbal ko lu toll ci 816 pères de famille muy juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay borom kër. séddale gi nag doore nañ ko ci daare kaamil ji nga xam ne moo nekkee ci jumaay Touba mag ji nga xam ne moo taxoon a jóg ca njëlbéen liggéeyub commission sociale bu tubaa ca kanam wéyale ko ci njabootuk ñi nga xam ne dañ fee nekkoon te génn àddina ci ñi nga xam ne dañoo amee feebar rawatina insuffisance rénale ak ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu commission sociale bu Touba ca kanam jot naa def ci social tabaski atum 2024 bi lu toll ci 30 millions 651 mille 400 francs muy fanweeri millions yu teg téeméeri junni ak fanweer ak ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki dërëm loolee nag moo ëmb ñaar fukki millions ak juróom-ñett yi nga xam ne séddale nañ ko ci ay enveloppe muy koppar yu ñu joxe ak 1 million 425 mille yi nga xam ni jënd nañ ko ci ay tissus mbooleem koppar yi nga xam ne def nañ ko ci yérey tabaski gi mu ngi toll ci 2 millions 651 mille ak yeneen dépense yi nga xam ne moo jëm ci transport motivation yi ak yeneen dépenses yi lépp di 30 millions 651 mille 400 francs CFA. commission sociale bu Touba ca kanam amoon na ci bor lu toll ci 9 millions de francs CFA ak yeneen dépenses yi nga xam ne daf ko war weeru nekk mu koy def mu jëm ci taxawu daaray kaamil yi nga xam ne mu nekkee ci Touba Mbacké ak mboolem ordonnance ak dépense yi nga xam ne mu koy def ci ñi nga xam ne dañoo wéradi moo tax ci 42 millions yi nga xam ne moom la jotoon a collecté na cee fay bor nga xam ne amee na ko mboolem liggéey bi nag bu yembee mbokk taalibe yi ñoo ci jàpp bu baax a baax commission sociale bu Touba kanam di leen sant bu baax a baax loolu yi mu ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides ci taxawaayam ci liggéey bi di santit jëwrinu Touba ca kanam di sëriñ Abibu Mbacké moom Cheikh Mouhamad Fadal ak mbooleem kilifay Touba ca kanam yi di santit bu baax a baax jigéen ñi nga xam ne am nañ taxawaay bu am solo ci commission sociale bu Touba ca kanam rawatina ci social tabaski atum 2024 bi ñu def ci liggéey bu mucc ayib di sant mbooleem ñi nekk ci biir réew mi ak waa diaspora bi ci seen taxawaay di santaat bu baax El Hadji Sëriñ Tàkko Mbacké moom Cheikh Mouhamad Fadal ci taxawaayam ci liggéey commission sociale bu Touba ca kanam ñu fas yéene wéyal liggéey bi ci ni nga xam ne noonu lañ ko àndoon ak yéen di waajal bu baax social grand magal bu Touba atum ñëw leen gaaw ànd commission sociale bu Touba ca kanam ci liggéey bi képp ko ci bëgg barkeelu mën na ko def ci numéro yi affiché am na Orange Money am na Wave muy 77 914 26 68 ñëw leen ànd ak commission sociale bu Touba ca kanam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi misras mi abi jaayi xayri man abaa